wàcc ak am jom du ma def dutul rek ne ko jàkkaarloog àdduna nga nuyoog àdduna nuyoog soppe yi nuyoog suñu mbokk internet yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan Binta kenn du ko présenté dañ naan ko nuyu Binta maa ngi lay ziar di la jaajëfal mm, delloo ziar bu rafet maa ngi leen di nuyu eh, di leen sant Mm, di rafetlu seen teewaay fii tey di nuyu àdduna bi yëpp ñu ñuy suivre euh, di leen bisimilah. Binta tubaab macha allah comme ni ma koy waxee rek yaa ngi mel ni tàngal 45 bi dubaale bi ëpp na lii Binta ñu Binta. waaw pël rafet loolu boo boo ma ko laajee dama ciy sawar euh, man la Binta Bassoum comme ni koy waxee directrice euh, Kanel Couture. Euh, ñu ngi ci fii nekk HLM 4 euh, derrière l'église Saint-Maurice d'Angers di yëngu ci mode bi lu yàgg nag nekk ci tendance yi Euh, nekk fi nekkal fi àddina nekk comme li may tàmm di wax nekkal luñ fi benn nit ñun àddina bi yëpp lañ fi nekkal ndax ku ñëw rek ku ñëw rek ñu jëf leen teg yow noo ko bëggee ak ñu ko sentiree. waaw dëgg du neex ba tax na man fi mu toll nii kenn maa ngi mel ni Dubaay. dëpp na xam ngeen Binta ak boo jeekoo del baale at na am solo xam nga ne fi toll nii lii ëpp na. lii dara fay ko nee naa leen ku bëgg lu baax. wala ku bëgg li nga xamante ne boo ko solee nga yëg ko sa yaram. muy tay baas muy robe muy grand mbubb fii nee naa mhm. gis ngeen li ko ci biir question yi tey jii nii mhm. naka ngay dundee yi mhm. ci wàllum ñëw des fois tailleur yi la plupart dañuy am problème ak seen client yi comme événement bi damay jub see nii ngeen encaissé ñëw yi ñu leen di oo du ngeen leen jël maanaam tardement yi daal seen diggante ak ñoom moo koy dundee boo xam da ngay ñëw clientèle yi wala da ngay libéré yi loolu moom xam nga comme li ñu wax rek euh, comme euh, aar bi dafay yaatu façon bu nekk moo ci nekk mais nit ku nekk boppam la mën a juger ak boppam la mën a waxal euh, boo gisee ñu teel a jug ci loolu bu njëkk ba xëy na prêt amul woon mais léegi prêt à dafa am. ñu ñu yombal affaire yi ba ku ñëwam yàggate ci client ci ci tailleur bi pareegul kooku yow la neex ndax bu njëkk ba da ngay dem jënd tissu nga ñëw ñawlu mais léegi dañ leen ko yombalal ñoo leen di jëndal tissu jëndal leen garniture ñawal leen ko ba pare tegal leen ko ci suñu boutique yi borom bu ñëwee choisir lu ko neex moo tax fu nekk lañuy la ñuy génnee mais parce que nit tamit olof Ndiaye nee na bopp du yenu bët du yen waaye xam na lu bopp àttan parce que am na leen tamit boo ko xasee bëgg mënul nekk nit am na rek lu mu mën a def loolu tamit di ci conseiller samay mbokk euh, styliste yi ak euh, tailleur yi ñoom ñëpp mu xam lu ñu jël parce que événement yàggul benn affaire bi nga xam ne buy duré deux semaine trois semaines mënoo ci baax baaxle mënoo ci yàqule li nga xam ne munut a dem rek yow na nga bàyyi nit ki bu ko defee doo yoreel nit ki àq nit ki tamit euh, du la yoreel àq parce que dama ne bu méttee rek si ñun la parce que am na noo xam ne ñun buñ ko defee rek du metti mais tamit jël ñawu jàmbur war ko ñaw nit ki toog di espérer dem ba dernier moment mu lay woo nga fay sa téléphone mu fay ñëw du la fa fekk dafa fekk say secrétaire wala say employé loolu na nga jàpp du kooku nga yàqal ndax sa bopp nga yàqal ndax bés bi day jaar la euh, tey mën nga ñoo wax ci biir euh, ñëw bi ñëpp depuis nga débuté ak ñëw bi mhm. ak ni ñëw bi euh, tasaaroo yi allah yan jafe-jafe am ci entre ñëw beex ak yéen téye gi seen diggante. Mhm. Euh, ñun moom ñu tey suñu diggante li ma ci mën a wax mooy lu may dund macha allah waaw parce que ay xarit lañu parce que foo gis rek ay nit lu ñu bokk bokku métier bi rek foog ñu lënkaloo parce que li ñoo fait la force parce que affaire bi du concurrent parce que lu àdd da mën naa wax lu HLM bi ba quatre soxla man man kese mënuma ko ñaw kon affaire bi il faut ñun ñëpp ñu bëri ñu lënkaloo nekk liggéey mais lu may wax toujours ci liggéey bi moo ci am na nga fexe ba bàyyi sa signature ci li ngay liggéey. boo déggee na nga fexe ba bàyyi sa signature. ci li ngay liggéey na nga marqué sa empreinte. bëgguma man naw ma ko kuy copier man dama naw ki nga xam ne day créer di ko teg euh, ci marché bi parce que par bu rafet fii àdduna bi ak réseaux sociaux yi lu nit créer xam nañ ko ku moom. Euh, yére bi wala modèle bi nit ñi xam nañ ko euh, ma lay nettali benn affaire dama demoon marché HLM doon jënd tissu fi ma doon jënd tissu maa ngi sëgg di xool tissu bi mais dama gis femme bi taxaw ba ci genou bi rek siggiwuma mais dama ne jàq yére bi rek ne lii maa ko ñëw ma siggi xool femme bi ma ne ko ça va mu ne ma ça ma man ko sa yére bi rafet na ku la ko ñawal mu ne maa ngi ko ñawloo Kanel Couture HLM4 ma ne ko noonu la ba fekk moment boobu dama voyage mais pour wax la il faut nga bàyyi sa signature ba foo romb sa ñaw boo ko nee jàq da xam ne nii man maa fi jaax loolu mooy l'essentiel bi aussi client yu ñëw si ñun tamit loolu moo leen di indi ci ñun loolu moo leen di poussé boo ci wóoloo côté boobu sa bopp rek defe naa doo sonn. na kon su ci biir tailleur yi day am ñoo xamante ne. Mhm. Euh, marqué wuñ seen empreinte. Mhm. ba tax buñ def seen création boobu. tey lu fi ñu koy créé moom la ñuy jéem a jël di ko fësal. Euh, waaw du ci ñàkk xam nga comme ni ñuy wax rek concurrent bi peut-être mi ngi partout comme ni ko nit ñi di waxee mais di di marquer sa empreinte dafa baax loolu mënu fi ñàkk parce que àdduna la parce que nit sax mën na xëy ñëw nee la modèle bi laa gis bii laa bëgga da nga ko koy ñawal parce que client bi lu mu la indil ne nii laa bëgg mais li nga xam ne man maa ko jël di ko imposer nit ñi comme Korité jot ma ne leen dama leen di créer benn mode de Korité di leen ko imposer loolu day fekk mu jóge ci man ku ko xool xam ne lii bàyyi kanel couture la mais euh, pël bu rafet boo fi indee dara nga ne ma lii laa bëgg li nga bëgg rek laa lay defaral incha allah <laughs> léegi tey gi euh, mhm. damay dégg ñu ne dañoo am association ñu bëgg xam ba xam boobu wala Binta Euh, waaw association bi ñu ngi ma ñu ma ciy woo mais vraiment duma wax li nga xam ne dunduma ko nekkuma ci. nekkuma ci comme li ma wax rek xam nga jigéen dafa bëri charge yaa ngi ci kër gi yaa ngi ci njaboot bi. xam nga yaa ci liggéey bi am na yenn yoo xam ne tamit euh, boo ko naree boole day metti comme li ma wax rek man sama sama entreprise mooy sama association te sama entreprise mooy Kanel Couture ak euh, personne yu ma ciy liggéeyal loolu mooy sama sama marque mais terewul ñoom lu ñu xewle wala li nga xam ne day dooleel ñaw buñ ma ci woowee man demee wuyu parce que ñaw bi rek la ñu am te mooy suñu teraanga. dëgg la dañuy gis des tamit comme monde korité yi ni muy xewee nii ay monde tabaski. yéen ñëpp des fois da ngeen ci télé yi mu bëgg xam lan moo tax yéen tey ngeen def coalition manko doon benn bokk def seen i monde par yéen yóbbu ko benn télé ba léegi ngeen di fay. waaw loolu aussi comme li ma wax rek. Euh, xam nga loo gis organisation la xëy na temps bi xam nga mi ngi mel ni rek nga ne damay xewle ay pour traiteur pour lan la pour mu faciliter la sa liggéey la ci sama gis-gis bu gàtt euh, xam nga xam nga affaire de mbooloo affaire de bokk liggéey dafa metti ndax xëy na am na nooy def rek kële ne kii la gën a favoriser kee mais ki ci bokk ñu ñu euh, organiser ko kooku ko je crois que bu ko defee kenn sañul ne euh, keneen la ñu favoriser wala pël bu rafet nii wala keneen wala keneen parce que lu muy lu mu lu mu woote moom nekku ci peut-être da koo def pour réunir nit ñi comme yow tey yaa ngi ni di tourné émission euh, yoroo sa atelier bopp xam nga tey peut-être boo ko yoroon nga defal ma mën naa ne ah, xool le xool pël rafet ni mu defalee boppam parce que affaire yi tamit liggéey bi dafa xaw a métti d'un noonu laa ko gisee ne man gisuma ci dara li nga xam ne. <laughs> waaw loolu dëgg la du frais yi du ñàkk dem bi ndax bi ma demee commencé dem euh, mode Korité daawaa ci géej la. dama def korité tabaski defaat korité tabaski dama tegle quatre édition di ko def ci diggante bi nag ma nekkaat doon perfectionné sama atelier nekkaat ak voyage yi et tout ça affaire bi xat parce que am na fenn fooy toolu bëgg jël xam nga tamit publicité neex na mais bu fekkee boo ko defee tamit am na lu mu lay tardé ci sa liggéey laaj na nga stop ba lijjanti sa liggéey ak lu lëg gi nga mun a teguwaat mais du question dafa cher ndaxte lan fay lan man de saa yi ma ko defee macha allah lu ma fa uti woon yàlla may na ma ko sant yàlla bu baax. mën nañu xam ñaw euh, bi ba xam loo xamante ne da ko jàng métier la. Mhm. wala da ko fekk ci say parents ñu ñu koy def. ñu mhm. am sa initiative boobu. Mhm. sa atelier. Mm-hmm. Uh, waaw man fekkuma sama famille amul ñawkat man ma juddu bëgga ñaw ba ma nekkee xale bu ndaw dama bëgg dama dama dama mës a bëgg li lépp li nga xam ne ci ñaw la dama ko fowee comme comme j'ai l'habitude de le dire dama doon jël sax ay doomu poupée doon ko ñawal ay yére yu rafet parce que ñu ngi dëkkoon à l'époque HLM 5 ci suuf immeuble yi ay ay ay tailleur doon nga tout le temps su ma jógee école rek maa ngi toog ca tailleur yi jàkkaarloog ñoom mun naa jàkkaarloog ñoom su ma waxoon di leen xool di <laughs> rek di foog ñaw comme li ñuy wax rek xam nga ñaw liggéey ba bépp liggéey boo gis rek foog nga bëgg ko nga mën ci dem xëy na alal ju la ci si fekkee euh, nga ànd ak moom mais moo ciy dugg na nga njëkk a bëgg la ngay def man ko cuub bi dama ko bëgg dama ko bëgg depuis bi ma nekkee xale aussi bi ma demee ba màgg continuer sama jàng ba arrêté ma toog ma ne ma xool lu ma war a def ma ne comme lu ma yàgg bëgg moom laa bëgg a def muy couture nit nag boo nee damay bëgg dara di ko def foog nga am foo jaar pour nga mun ko gën a xam ci laa dem benn centre centre d' enseignement technique féminin bu nekkoon fii Grand Yoff ma dem foofu def fa benn formation accélérée jàng coupe pour rek li nga xam ne dara daal comme li may wax rek boo nee da nga ko da nga ko bëgg da nga a mottali ci côté yëpp ndax ñëw dafa laaj finition te am na fenn foo xam ne boo fa awu rek nga xam finition bi day jafe loola <laughs> <laughs> nga woon ñu si say ñëw tuuti ak si say modèle. fii wàcc. loolu daaw loolu la ñuy ñëw def léegi. <laughs> c'est c'est ma faat bi. gis ne. Mhm. Euh, sama invité waa Fakal macha allah. gis nga. <laughs> Euh, moom góor rek. Mhm. décortiquer bi modèle bi. li nga ñëw lan la Binta <laughs> na. am na solo. xam nga bët bu rafet dañoo nekk dañoo nekk ci été te euh, colin dafay laaj ci temps bi la nekk xam nga été am na printemps am na été kii am na hiver comme tàngaay bi lañuy ñuy door a jug ñu defal ko rek deseer defal ko robu euh, robu taille maam ñu patché ko moom ak brodé coton bi ah dugal ci tuuti garniture coton ñëw ko rek gis nga xam ne dafa classe dafa simple dafa te mën na la yóbbu foo bëgg a dem te xoolal doo mës a daanu comme li ñu wax rek kooku tey jii moom today Kanel Couture simplicité rek lay incarné incha allah. parce que loolu la Korité laaj. Euh, manche yi gis nga manche gonflant lañ ko def. manche euh, dañ ko def euh, manche body ba ci niveau kii bi ñu def ko gonflant xam nga comme li ñu wax rek temps yi manche yi moom comme li ñuy wax mooy bomb temps yi mooy bomb. machine mooy yëngal gëstoo bu baax a robb la robb taayu maam ah gis nga te ku ne mën na ci gis boppam ah. manière bi aussi comme loolu rek la xam nga am na xam nga ku nekk ak góowam kii day ñëw choisir manière bi kii ñëw choisir robe bi. xam nga kii ñëw grand boubou bi kii ñëw choisir taille basse bi pour wax la rek boo gisee ñuy laal fu ne. pour won nit ñi lépp li nga xam ne nit ki bëgg na ko rek bu ñëwee fii ci Kanel Couture c'est possible moo tax ñuy laal ci patch bi laal ci daminé bi laal ci garniture bi xam nga laal ci coupe simple yi bu ko defee rek ku nekk mën ci gis boppam bu ko defee boo ñëwee fii ñu def leen teg yow yu baax <laughs> waaw ku ne xam na ne. Euh, mhm. xale jigéen ñi. def nañ sax ay jiin ay body. Mhm. tey jii ku ne xam na ne jigéenu Sénégal tubaarkalla macha allah. Mhm. dañoo taaru bëgg sañse bëgg lu baax. tey boo leen doon conseil en tant que euh, tailleur. en tant que ñoom ñi nga xamante ne ay clients lañ nga leen di wax. Euh, xam nga comme li ma wax rek <laughs> nit moom xëy na ca la ngay nekk. ci nga mën a wax nit ñi nañ la ciy fekk si parce que pël bu rafet léegi suñuy yëree dañuy ñaw ba sol génn nga ne nga ne ñaw bi ndax lii prêt la ndax importé la wala fii fii léegi dañuy ñaw yi nga xam ne boo ko solee moo mag prêt à porter bi mooy importé yu tube yi doo ko mën a ràññee parce que ñaw yi léegi dafa am classe ñaw yi léegi dafa am finition ñaw yi léegi aussi encombré tul muy ci ñaw góor yi di ci ñawu jigéen ñi bu njëkk ba peut yëre yi dañoo doon encombré ba pour nga mën ko sol def yenn yi dafay jafe mais léegi boo xoolee quatre vingt dix pour cent ci yére olof la ñuy gën a nekk à l'aise que yére tubaab yi moo tax euh, ñu ngi ciy gis suñu bopp ñu ngi ciy sant yàlla parce que léegi tissu importé yi la ñuy jël di ko coupe coupe yoo xam ne parce que eau bi ngay jënd ji à l'étranger boo ñëwee fii ñu kubal la ko ci ngay gën a am style bu la neex ci ngay gën a am yow li nga bëgg fekk aussi ci lay gën a yomb ci yow <laughs> sa relation ak artistes yi tey mën nga tey. ci ne ci biir da da ngeen liggéey ak ñoom wala doo liggéey ak ñoom. non man liggéeyuma ak euh, artistes yi euh, solaluma artistes yi mais comme li ma wax rek comme ñun ci lu ñu nekk rek ñun ñëpp aar la. ñawkat bi woykat bi ñun ñëpp ay artiste lañu euh, solo luñ leen mais fu ñu woote fu ñu woote ñun dañ fay dem parce que ñun ci ci kii bi ci euh, ci àddina bi lañu nekk ñun ñëpp ñoo bokku métier bi euh, tey jii tey jii bu Kanel Couture xëy na nekkoon ne day def défilé boppam xëy na du mën a xumb tant que artiste bi ñëwul tey artiste bi tamit bu demee ne maa ngi tëgg grand théâtre du mën a dem tànk tamit styliste yi ñawuluñ ko ba mu gis ci boppam affaire la bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ànd ñun ñëpp benn lañu mais vraiment euh, soluma benn euh, artiste <laughs> li ñu tàggatoo place bi kër gi mhm. euh, nga ma lu metti parce que liggéey couture nekk na métier bi nga xam ne su ma neexee ma ne moo gën a metti ci métier àdduna bi yëpp parce que amuñu wiken end amuñu férié amuñu vacance ñun toujours dañ ciy tegu koor gi bu mu jotee ba tey fii la ñuy nekk parce que balaa ñoo wàcc 22 heures te dafa door nii pour wax la nekk na métier bi nga xam ne boo ko bëggul au fond de toi du doon li nga xam ne du dem nga bëgg ko boole boo xëyee sa kër génn nga guddi nga fay du dugaat yow ak ñëpp ñi nga nekkal mais loolu yëpp pour lan la parce que bu la nit ñi taamoo ne yow la yow it mënoo lu dul daw ci ginnaaw nit ñi. comme li nga comme li nga wax rek di bañ toujours di nekk en retard ndax loo teelul jël rek après dalay dalay dalay raw bëgguñu ñu ñëw. fekk yéreen pare wala diw ñëw dama bëggoon tenue dem kani couture fekkuma fa tenue loolu ñu bëgguñu ko bëgg nañu ku fi ñëw rek di nga fi fekk li nga xam ne moo la moo la soxaloon moo la fi tax a ñëw aussi tamit ku fi indi ñawam dinañ ko ñawal telle sorte que nu ñu ko waxee woon bu amul de plus moins bi du ci mën a nekk mais nekk na métier bi nga xam ne tamit métier bu metti la parce que tamit loolu euh, luy neex ci événement daal ñun duñ ko yëg duñ ko yëg mais sant yàlla alhamdulilah parce que comme ñoo ko choisir sant yàlla la bu baax. voilà ñoo ko gisandoo mbokki xarit yi si tàggatoo mbokk yi tàggatoo xamante ne koy seetaan a euh, maa ngi tàggatoo tàggatoo bu dul tàggatoo waaw di remercier seen équipe bi vraiment. Ah, waaw suñu gaal 24 di remercier sama clients yi un peu partout dans le monde du ma lim ndax su ma limee juum comme li ma wax rek Kanel Couture yéen a ko taamu waaye Kanel Couture dina leen taxaw ba ngeen xam ne taamu bi ngeen ko taamu rëccute du ci am. waaw di nuyu nag sama client yi di nuyu sama cliente yi di leen remercier di remercier aussi seen fidélité di nuyu équipe Kanel Couture comme li ma wax rek man lu ndaw laa ci Kanel Couture parce que Kanel Couture équipe la mais équipe bi nga xam ne équipe bu dynamique la équipe bi nga xam ne équipe bu ñëpp di war la mais macha allah xëy na yàlla man la ci taamu ma dal ci parce que bàyyi nit ñu lay gereel yombul Kanel Couture fu bëgg dem dem fa ak xel bu dal te client bu mënti ñëw ci ginnaawam satisfaction la ci am loolu lan moo ko waxal ñu fa bàyyi dañ ko taxaw kon loolu maa ngi ciy sant yàlla di gërëm équipe Kane Couture di gërëm équipe Kane Couture euh, gërëm gi nga xam ne am na commencement mais amul fin di leen ñaanal tey ku nekk na dem yàlla na ko yàlla dimbali mu dem ba amal lu Kane Couture am ñu amal ko seen bopp di gërëm samay waajur di ñaanal sama yaay moom xëy na foofu laa naroon ubbee mais comme lu ñuy wax xel day fatu di ko ñaanal bu baax fa mu nekk ci barsaq yàlla na xippee àjjana moom wax bépp doomu aadama ba fa nekk di ñaanal sama pap yàlla ñoo di ay fanam ba lu yàlla tere sama yaay yàlla may ko ko mu fekkee lépp te ñu bañ a séddale dara ci ginnaawam di ñaanal samay njaboot di ñaanal samay sœur samay frère du ma lim man borom famille laa mais di wax ñëpp merci parce que gis naa nuñ ma jàppalee parce que euh, métier bi nekk na lu neex mais nekk na lu metti parce que nit moom bu fu mu nekk war bëgg na gis ay famille wam incha allah taxawu nañ ma bu baax taxawu nañ ma bu baax bàyyiwuñ ma benn yoon maa ngi leen di jaajëfal di leen ñaan yàlla rek yaakaar gi ñu am ci Kanel Couture yàlla bu yàlla tas seen yaakaar man tamit yàlla ma yàlla may courage bi nga xam ne mën naa ko téye gis ko fa ci darajey Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyuwaat sama client yi di nee nañu préparé di nee nañu préparé Tanel Couture ñëw na ak modèle yu bees mi ngi waajal tournéem mi ngi waajal tournéem bientôt incha allah parce que comme li ñu wax rek comme affaire yi yombul ñun dañoo accessible fu ñu nekk ñoom ñun ñooy dem ba ko fekk leen ko fa jox leen ko ci nu mu neexee ci nu mu yombee ci nu mu rafetee ci nuñ ko taamoo kon maa ngi leen di jaajëfal bu baax yéen client ak cliente Kanel Couture yi di leen ne à bientôt incha allah merci beaucoup et à la prochaine. kii <laughs> leen indi seen émission Peul Fun Time euh, nee naa leen ak Binta du ay foo du ay caaxaan ba tax na nee naa leen lu ñëwul rek baaxut. te lu daggut moom baaxul euh, di ko ñaanal jàmm yoon la jàmmam yàgg du ma taay di jaajëfal suñu mbokk internet yi seetaan nee naa leen doole jën ndox la yéen ñu dooleel yéen lañ fi nekkal ngeen nekkal ñu fi di jaajëfal képp ki nga xamante ne mu ngi toog di bàyyi xel ci sunugal 24 point net di jaajëfal sama yaay booy di ko ñaanal jàmm yàlla jàmmam yàgg yaay booy di la wax ne la dundal 160 ans ah, dama bëgg nga dund ba fekkee suñu njëriñ di j ñëpp ci yeneen facette yeneen daanaan yeneen artistes yeneen tailleur yeneen couturier ñëpp daal maa leen di xaar yéen tamit xaar leen ma ñu daal di pirloo fëlante karkaraatoo mu daal di neex foofu toj fii sax loolu saay ma fi mel ni dañu ma tee to say I love you no damay wéere kon yaay sama lii sama laay sama lee sama lii sama laay la